moom lañ yaakaar ne suñ ko defee bés bi dina gën a gën a ñol soo jëlee ci wàllu wër gi yaram foog naa ne eh, lañ ca àddu muy muy ay poste avancé ci li mu ñaar fukk yaakaar naa ne médecin chef de région ah, jël nañu engagement que dinañ ko def li ci des rek tàmbali nañ ko pour xool identifier sites yi nga xam moom lañ ci war a dolli di ñaan comité d'organisation ñu baral ko xool yi nga xam ne mooy yu yees yi fi ñu ko war a samp su ko defee ñoom ñu mën a jël seen seen matuwaay la ca des rek mooy jumtukaay yi ko war a gunge muy wàllu ambulance ak médicament renforcement personnel loolu yaakaar naa ne euh, région médicale ak district sanitaire yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi ah dinañ ci am taxawaay boo xam ne war nañ ko ci def ci wàllu service d'hygiène aussi muy wàllu cet muy wàllu opération yi nga xam dañ koy désinfecté dëkkuwaay ak bërëb yi nga xam ne dañuy dalal gan yi ah ñu war koo tàmbali fukki fan ak juróom ah la ca des rek mooy dinañ ko yëgal également kilifa yi nga xam ne ñoo féete kaw lu mel ni ministère de la santé su ko defee produit yi mën a teel a yemb su ko defee liggéey bi ñu mun cee mun cee sóobu euh, wàllu kaaraange moom foo naa ne tàmbali nañ ko foo naa ne bu yàgg gis nañ opération yi nga xam ne takk der ñu ngi koy def pour gën a mën a aar askan wi foo naa dañ koy wëyal fii ba Kazu Rajab mu ci wàllu renforcement personnel ñoom loolu foo naa ne seenu kër de métier la ah su amee lu ci dooleeku rek ñoom it dañoo war a dolli seen personnel te yaakaar naa ne Euh, ñi nga xam ne ñooy kilifay takk der yi dinañ jël matuwaay yi nga xam ne moo ci war su ko defee nit ñi dem ñëw si jàmm dellu si jàmm waaye ñu gën a bàyyi xel rek wax nga ko léegi wax nañ ko léegi muy bés bi nga xam ne mooy màggalu Kazu Rajab tombeek ab ajuma maanaam loolu foo naa ne waa polis dañ siy ñaax rek ñu bàyyi xel bu baax ci grande mosquée bi dëgg la bés yëpp kii na waaye bésu ajuma su tombe yaakaar naa day gën a yokk xat-xat bi gën a yokk aussi mbooloo ma fay daje kon muy sapeur pompier ak police nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te yaakaar naa ne ah, dinañ jël jumtukaay yi ca war su ko defee gën a aar donc bërëb bi nga xam ne mooy bërëb yi nga xam moom la ñuy moom la ñuy ziar mais également waxtu julli gi xam nañ ne il faut que ñu teel fay def dispositif mun a gën a orienté askan wi su ko defee te loraange bañ fa bañ ca am ah yeneen yi muy wàllu ndox foo naa ne wax nañ ko léegi muy di jëm ci forage yi ah yàlla def na benn moo ci paanugum ne nañ diiru ñaari fan mais nañ ko wax ko fort également ah, ñu tel see jublu aussi parce que li gën mooy forage yëpp aussi di joxe ndox li ci des muy wàllu camion citerne yi àddu nañ ci lu ñaar fukk incha allah rabi dinañ def plaidoyer bi ci euh, DG OFOR dëgg la ku bees la mais mi ngi woon ci kër gi dañ ko xool aussi ak ministère de l'eau de la l'assainissement ba lim bi nga xam ne moom la comité bi àddu ñu camion yooyu aussi mooy tax parfois fu jafe-jafe am ñu mën a dem aussi jox leen ndox donc incha allah rabbi dinañ ci góorgóorlu ba lim boobu suñu borom def ñu mu antu wàllu assainissement ak énergie loolu foo naa ne Sénélec ñi ngi jël seen matuwaay pour mun leen gunge ak yombal également peut-être descente électrique yi nga xam ne moom lañ def ci bërëbu exposition bi wala wala conférence li ci des rek muy wàllu contrôle te suñu nee contrôle mun nañ ci jël lépp muy douane muy également élevage muy commerce loolu foog naa ne aussi li ci jiitu rek mooy yeewanal gi maanaam jéem a fexe ba af si mbir yi gën a oyof ci nga xam ne moo ñooy ñëw pour màggal gi waaye tamit oyofaay boo aussi du tere nag dina am loo xam ne muy le minimum de contrôle munul ñàkk ndax am na ñoo xam ne dañuy màggal si mais am na si ñoo xam ne leneen moo ñu ci indi mais su boobaa nag loolu nga xam ne moom lay tagg def dina tax ba ñi nga xam ne safaanu moo leen fi indi ñu mun leen mën a aussi teg loxo mais yaakaar nañ ne lépp loo xam ne ne jàpp nañ ko pour yëwandal ko ñi nga xam dañuy màggal si service technique nañ jël seen matuwaay bu mun koo mun koo gën a yewanal yaakaar naa ci tënk loolu lañuy waroon def li si des rek mooy fexe ba engagement yi nga xam ne moom la ñu fi jël kenn ku nekk def ko sa mbiru bopp ba suñu borom nag mooy mottali mais yéene beeg Pastef bi ci doomu aadama bi la àddu loolu lañ leen ci ñaax di si ñaax képp koo xam ne aussi teew nga ci la ca des it mooy ñi ñi xam ne ñoo ñu féete kaw muy kilifa yi suñu fi jógee léegi dinañ am liggéey boo xam ne nañu ko ci def pour teel leen yëgal li nga xam ne mooy mëbët bi su ko defee incha allah maintenant préfet bu Mbàkke dina ko def ànd ko comité d'organisation bi su ko defee fañ ci toll rek suñ ko yëgee su li nga xam ne laaj nañ ko jubbante wala teel ko yëgal kilifa yi ñu def ko ci mooy gën a ñu bàyyi ba mu sës ñu koy soog a yëg te yaakaar naa suivi boobu aussi dina ci am solo donc loolu moom lañu sas préfet Mbacké mu bañ a nekk rek benn benn réunion mais yaakaar naa ne lu muy gën a bari même si c'est parce que ñu teel ko yëgit foo naa ne dina tax ñu mën ko jeel teel a yëgal kilifa yi lu ci mën a jubbante ñu loolu foo naa ne préfet Mbacké dina ci liggéey comité d'organisation bi ñu def un bon suivi rapproché lu police xam ne am na outil comme ni ñu ko defoon ci grand màggal gi mu ngeen def des outils de suivi su ko defee lépp loo xam ne yi yemb na ñu mun koo xam yi yembagul ñu xam ne yi yembagul yi am jafe-jafe aussi ñu mun koo xam loolu su ko defee mooy dimbale kilifa ci kaw ñu mun koo teel a jubanti kanaa suñ ko defee suñ borom mun nañoo may incha allah magalu a bu mujj ayeb ñu ñaan suñu borom jum faak jàmm ba lépp luñ si ñaan aussi mu nekk yiw ci réew mi donc wax nañ ko léegi wàllu dem beeg dikki bi ay jafe-jafe mi ngi ci waaye fanaa li fi sëñ bi àddu rek loolu foog naa ne doy na ci xanaa di ñaaxaat suñu ñaanaat suñu mbokku transporteurs yi aussi am na si ñoo xam ne ñu ngi ci moment de grève yaakaar naa ne am ñaari bés yoo xam ne dañ koy jub si muy màggalu Poroxaan di màggalu Kazu Rajab ñu ñaan également xel yi dellu si ñu xam ne dem beeg dikk mënul ñàkk am nañ si nag réunion bu ñu woote alxames mais dañ siy rek ñaanaan ñëpp ñu xam ne réew mi aussi ah am nañ ci devoiru kaaraange dëgg la waaye suñu deful lool kenn ku nekk am nga wàll boo xam war nga ko ci def ñu leen di ñaanaat xel yi dellu si waat su ko defee tamit dem beeg dikk bi gën a yomb ci euh, askan wi ndax yaakaar naa ne ku ne màggal aussi wax transport collectif ku nekk amul sa oto bopp waaye nag transport collectif mooy permettre ñi mën na ñëw màggal si si jàmm kon foo naa ne tamit occasion la boo xam ne dañ ko ciy profité ñaan ko suñu mbokku transporteurs yi donc su ko defee dem beeg dikk bi gën a yemb du tere nag quand saytu ba ñuy saytu pour aar askan wi moom mënul ñàkk ndax foo naa ne loolu aussi mooy aar euh, mooy aar askan wi donc yaaru kàddu yi daal lañu bëggoon yëkkati di feddaliwaat donc suñu ziyaara ak également suñu ñaan si xalif sëñ Abo Mbàkke du suñu xarit tamit du suñu kilifa te foo naa ne sëñ Abo Mbeng mi ci biir xam na ci bari donc yaakaar naa loolu aussi lépp loo xam ne war nañ ko ci def rek nañ ko ci def